bi yaa ngi bëri arène nationale bi mais gars yi ne li ñu gis rëbës ba tey dafa des quoi dafa mel ni gars yi ne leen fii rek nga a stade bi mais fee aayoo ne Double la a li a wuute est ngi léegi ni tey nga ne Modou Lo euh, euh, nga li muy li muy andi euh, amitié rek ak li mu doon yóbbu Demba Diop mënul yem noonu la demee rek tey jii nii comprendre nga nga xool Boy Niang li mu doon yóbbu Demba Diop ak li mu andi bi passé bokkul lamb moo demee noonu rek tey jii nii fi la gën a jege moom à tout moment te stade bi moo ñu gën a jege bokkul ak Pikine Pikine benn sori na xam nga te danger yi ci nekk tam dafa bëri lu bëree bëree bëri xam nga après bu ñu nangu seen doom yi di dem xam nga affaire yooyu noonu ba pare tamit après dañuy am problème transport fii nii parce que oto bu la yóbbu du la nangu yóbbu retour. yooyu mooy gën a. xanaa seen maire yi nekk fii du la jàppale. non maire bi moom fii mooy loolu maire bi am nañ fa ay nit yu ñuy jàppale parce que ci mel ni Seydou Camara ñu ngi koy sant bu baax moom day jàpp si affaire bu baax a baax mais maire bi mosuñu gis ndimbalam si suñu si suñu suñuy bës. yow eh, nga yow. fu ne mais ñun moom dañuy sant yàlla ci côté boobu rek parce que am nañ job si waaw moo tax xam nga comme job si moom yenn yu bëri doo ko jooy. su ma la déggee kon. dëgg yàlla moom ñun gis nañ moom dëgg yàlla bu dee dëgg rek la yàlla bëgg Eh, ndax mosu ñu am combat ba mu ba mu yëkkati cent ñu am lépp lu ñuy am suñu amee combat supporter ñooy débrouiller di génne seen moo leen ay taw taw supporter yi gars yi bu ñu gars yi bëri dañuy umpale loolu dañuy foog ne gars ñoo ñu jëndal bi affaire yooyu noonu ñu ñuy bi ñu néew lañ. kon su ma la déggee mooy seen mairie gox bi tegu la loxo buuxu la quoi dimbali la Diop si moo lay dimbali. man dimbalam. ma la fa leer am naa fa nag ay nit ñu may jàppale ku ci mel ni euh, Seydou Camara. moom adjoint maire foofu la nekk. dèjà su ma déggee sax da nga ne gisagoo ndimbalam gisagoo ndimbal kon c'est-à-dire ndimbal bi tàggeewul faneen nekkul mu ngi koy jox muy si kaneen ndax nee ndimbal waaye néewoo néewoo dimbali ma ne gisaguma ndimbalam kon yow da ngaa jàpp ndimbal bi dafa tax si kaneen. non xaw ma de mais man daal l'essentiel daal xam naa ne moom am nañ ay combat ba taay bii di demande dugal ko foofu noonu mais après ñu gis dara quoi waaw loolu moom du benn du ñaar am nañ combat ba taay bii di demande yóbbu ko mairie mais mairie ba léegi teguñu loxo mais yooyu sax garaaw ñun am nañ job si xam nga am nañ Pascal am nañ Yakham Mbaye am nañ Lamine Mbengue xam nga ñu ñu ngi jàpp si biir yu baax ay Elimane Gueye bu Serigne Saliou ay a Gueye bu Serigne Saliou moo tax ñooñu xam moo tax ñun yooyu garaawul quoi mais dafa gën a rafet tam ñun ay doomu Dakar Plateau lañ doomu gox bi lañ te ñun bu ñu demee tamit Dakar Plateau la ñuy représenté te tey mbër yi ngay gis yëpp dañuy am combat seen mairie lañ leen di jàppale mais ñun suñu mairie ba léegi nii su ma déggee ni nga waxee mooy mere nga mairie bi trop. mere nga ko trop. ma leen de. ah mer kay ni ni nga waxee nii mere nga leen. barke Serigne Saliou Mbacke ndax jàppale du par force moo tax merew ma ci kenn. waaw ah. man wax naa la ko ci biir wax nee la. loolu amul problème parce que ñu sant yàlla am nañ ñu ñuy jàppale. yaa ngi dégg te ñoo ñu di ñu jàppale day jii bu la neexoon ñu téye seen ba ñoo jàppale. yaa ngi dégg kon ñun du ñu mere kenn merewuñ kenn si dara. mais ma dafa gën a rafet ñun ñu nekk ay doomu Dakar Plateau bi ñoom ñu teewal fi Dakar Plateau nekk suñu maire yaa ngi dégg ñun ñuy Dakar Plateau dafa a rafet suñu amee bés ñu jàpp si foofu laay waxee mais du dañ leen lim ñu ngi jàppale ñeneen ñu ngi jàpp si leneen ak leneen. ñu ngi ñu ngi def social ci leneen ak leneen ci ne war a xalaat non non mais raw ma leen ci dara ne Seydou Camara day yëkkati xewal bu bëri du ma ko jox te moom adjoint maire la foofu noonu mais su ma amee combat day génne xaalis bu bëri ci poche boobu di ma ko jox. est ce que du loolu moo tax ñu ne day jël combat risque li nga ne di leen jàppale moo tax nga dem ba ba léegi mag ñi rek ngay jël. ñàkkuma ay jàppale yow comprendre de man ñàkkuma ay jàppale laa la wax man côté boobu maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax aw ma problème mu jàppale. wala déggoo ñu limal fii nii. ñi limal fii nii rek ku ci nekk la wax nga jënd 3 bloc wala 4 bloc. suñu papa Diop si am combat mu génnee ay def ko ci taalu jënd ko ay billets kon xam nga kon ñun amuñu problème boobu noonu. daal sa problème mooy maire bi. lu maire bi du sama problème ma ci laaj rek moo tax ma wax la ci boo ma ci ma laaj ndax maire yi ñu ngi leen di jàppale man ni la jàppale wuñ loolu kese la mais amuñu si benn problème. yow daal li tam ba benn instant mi ñu jàppale ñu ñëw wala dara loolu kese la. li may tëj daal si côté maire bi mooy daal nee nga maire mosoo ko gis sa combat mosula yónnee mosula jëndal bee mosula defal set mosula jàppale wax day leer yaa ma wax loolu mosula jàppale mosula jëndal bee mosula defal set te loolu yaakaar naa mooy jàppale mbër waaw kon monsieur le maire ñoo ngi lay ñaan nga jàppale suñu champion bi double moteur ndax kon bu ne bëggoon nga am ku mel ni double moteur champion la di sant sama gars yi nga xam ne benn sax ñoom ñoo ci sonn xam nga ku ci mel ni suñu papa Diop si xam ku mel ni ministre yaa xam Mbaye Lamine Menga xam nga Pascal Bassène Popol di sant maam Góor Samb bu baax a baax a baax a baax a baax di sant Cheikh Fall xam nga di sant waa kër Serigne boobu baax a baax a baax a baax di sant sama Serigne maam Serigne Mbacke imam maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko jaale juróom yi génn àdduna di ko jaale waa yëpp ak njaboot Cheikh Modou yëpp di sant sëñ Sidi Alxuraan borom jàmm gën si am mbaaw maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax sëñ Sidi Alxuraan di sant sëñ Fallou jaale ba du maraaxib xam ak sëñ Xaadim waa kër yëpp daal kër yëpp maa leen di sant parce que combat bi jàpp nañ ci xam taxaw nañ comme ni mu waree di sant bu baax a baax a baax a baax waaw di sant Xaadim Jaxate waaw di sant amateurs yi tamit bu baax a baax jeune amateurs yi di di jiital sant bi ci seen président Gora Ndoye ba ci ki suuf di leen sant ñoom ñëpp bu baax baax heure bu mooy combat amateurs dañ ciy jàpp dañuy dajale seen benn xewal ñëw jàppale ma ko kon maa leen di sant bu baax a baax a baax baax a baax di sant gars yi yëpp xam nga ak mafia bi Baye Fall fii café gi xam nga sama grand yi nga gis yi ñoom Abdou gars yi nga xam ne chaque ñëw di naan café gi yëpp di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di sant sama benn grand Modou Diagne di ciy bu baax a baax a baax Diop Jolaar xam nga ñoom dañuy seen xewal di ko def ci affaire yi xam nga di leen sant bu baax ak bool bool yi kajoor kajoor yi bàyyi ma kenn daal sant gars yëpp.